salaamaaleykum mbokk internet yi daleen ak jàmm ci Sen Sports 221 English Premier League la ñu koy tàmbalee ak Everton bu Idrissa Gana Gueye tey jii dañoo daal di save ci li nga xam ne mooy English Premier League maanaam wàccatuñu mënatul métti ba ñu wàcc ndax match bi nga xam ne am nañ ko tey jii te dal di ci am ndam mooy jogante goo xam ne kat jamono bi ki nga xam ne mooy Idrissa Gana Gueye moo leen ca jox ndam seen diggante ak Brentford moo marqué benn bit bi xew ci match bi loolu di wane li nga xam ne rek mooy xarañte bi nga xam ne moom Gana Gueye am na ko bu ngeen bàyyi xel ñetti match yi maanaam depuis mu jóge ci blessure bi ak léegi xam ngeen ne weekend bale weesu dafa marqué woon ab but bi ci topp mu daal di joué match bu rëy contre Liverpool tey ji mu marqué beneen but but bii nga xam ne Gana Gueye dugal na ko nag moo fi bàyyi Everton kon Everton déwén bu ñu joué ci English Premier League bi war nañu koo gërëmee Idrissa Gana Gueye ndax but bi mu dugal tey jile looloo tax jamono bi sauvé nañu mënatuñu wàcc ci li nga xam ne mooy deuxième division kon leer na ci ne Everton ak Gana Gueye ndax Gana Gueye dina fi des am déet waaye Everton moom déwén ci English Premier League lay évolué lu mooy loolu Chelsea Football waaye nag match boobu ndam demul ndam dikkul deux partout Aston Villa moo recevoir Chelsea ba noppi bëgg ko noggatu premier mi moo daal di koy jox ñaari bal Cucurella moo dugal bit bi njëkk maanaam contre son camp la waaye nag second bit mooy moo ko daal di dugal ci quarante-deuxième minute bi ñëwee nag ci second bi Chelsea daal di réagir ki nga xam ne mooy Madueke moo marqué ci soixante-deuxième minute Gallagher marqué ci quatre Chelsea sax amoon na li nga xam ne mooy occasion ngir gagné match bi ndax kat am na ñaari bit yu mu dugal waaye yëpp arbitre bi ko daal di wala boobu nag mu ngi xew sax ci premier mi-temps bi kii di Nicolas Jackson ndaroon teel a dugal ci match bi waaye arbitre bi nee na hors-jeu la lii moo yàq li nga xam ne mooy feetu tey gile xam naa ne wateef gi bees gi moom bu ci amoon ab bit tey jii wala kon dina gën a dalal xel ndax ñu bari da jàpp ne kon wateef gi am na njëriñ loo ci mën a dégg def na match donte ne marqué wul waaye nag ñu gis ne ci li nga xam ne mooy fin temps bi Chelsea amaat beneen bit boo xamante ni voilà kii di Disasi moo ko dal di dugal bit boobu nag fi mu ne nii mooy débat bi jur na coow lu rëy ndax kat arbitre bi dafa xool ci VAR bi ñëw ne bal bi dafa am faute boo xam ne dal dinay xew voilà balaa ñuy dugal bal bi maanaam bi ñuy def build up ci but bi ci la nag li nga xam ne mooy benn faute xew ndax ki nga xam ne mooy Disasi wala Badiashile Badiashile moo daal di benn joueur ñii di waa Aston Villa laataa muy def passe bi voilà ki nga xam ne mooy Disasi mbëkk bal bi mu dugg léegi loolu nag nee nañu faute la arbitre bi ci li mu wax looloo tax mu daal di li nga xam ne mooy bit boobu nga xam ne féete woon nañu ko ba noppi voilà kon ñaari bal tey ji Chelsea dugal na ko arbitre bi daal di koy lànk lii moo leen xeeñ dam waaye nag ki nga xamante ne mooy coach bi moom àndul ci muy Mauricio Pochettino moom mer dëgg la def bi match bi jeexee laataa moom sax xam na ay joueurs yoo xam ne jot nañu jël ay carton rawatina ku ci mel ni Badiashile ndax moom dafa ñaxtu ci kanamu arbitre bi bi mu jeexalee match bi ci biit boobu nga xam ne da koo dal di bañ voilà mu dal di jël li nga xam ne mooy carton waaye nag ki nga xamante ne mooy coach bi di Pochettino moom moom na li nga xam ne métti na ko mu ne daal bal bi nga xam ne di saa si dal di koy dugal arbitre bi dal di koy annuler moom loolu mënu ko comprendre mu ne moom daal li mu jàpp mooy VAR bi dafay yàq football mu ne VAR yàqu na fi mu ne ndax VAR mu ne bu ñu xoolee tey ji VAR bi moo leen xeeñ li nga xam ne mooy biit boobu te bu ñu bàyyi xel yàggul dara mu ne ñaari semaine rek ci ginnaaw seen match bi ñu amoon a expliquer na leen li nga comprendre am na en am na li nga xam ne mooy lu ko métti lool moom kii di Mauricio Pochettino Chelsea nag xam ngeen classement am jamono bi voilà ba tey ji rafetul ndax bu ñu xoolee mu ngi ci juróom-ñeenteeli place ba maanaam fi nga xam ne fa la bëgg a jeexale championnat wala bokk yéene bi nga xam ne fan ci am nañu ko mooy lu mu bon bon mu dem ci Europe te loolu nag fi mu ne ni mel na ni leeragul ndax résultat yi ni muy demee fan yi kat doxul lu mooy loolu France moom tey ji feet gi yàqooti na muy paris saint germain bi nga xam ne ñu ngi doon xaar mu daal di fete li nga xamante ni voilà mooy ab trophée maanaam daal nekk champion ci ligue 1 ba xam nga fan yële ci ginnaaw bëggoon na ko nekk mu naa koo yàqal ko tey ji moom la havre gi mu dajal mooy yàq lépp la havre daal dafa motti nil ak paris saint germain trois partout jogante koo xam ne sax dee dafa mel ni ñi la havre dañoo ñëwoon am taxawaay bu dul door paris ndax bu ñu xoolee ci match bi sax ñoom ñoo njëkk a dugal paris ñëw égalisé ñu daal di leen ñëw jamaat ñaar andré ayo sax marqué na benn bit ci match boobu voilà ñu dem ci 3 buts en 1 waaye nag ci ñii di waa paris saint germain daal di réagir hakimi ak ki nga xam ne mooy ramos Ramos voilà mooy Gonzalo Ramos ñoo marqué ñaari but yi nga xam ne moom la ñu mujj am lu ko jiitu Barcola dugaloon na kon ñii di waa Paris Saint-Germain dañ doon ngéej jot seen bakkan ci quatre ci la ñu dal di jël li nga xam ne mooy benn poñ bi nga xam ne am nañu ko voilà waaye nag li nga xam ne moo aju ci nekk champion moom dafay xaar kon feet gi tey ji yàqooti na ci allemagne mom ñi di wa bayer leverkusen defati nañu seen manim ñom itam ndax tay ji ci match bo xamne ñom itam dañ leen doon door ñu bari japp ne tay rek la leen yalla doon xare ak biñu tambalé championnat ba légui kenn dooru leen ñom biñu tambalé saison bi ba légui sax la wax amul ci benn competition bo xamne door nañu leen xabi alonso ak gonem wala daldi deng maam jouer match bu am solo seen digënté stuttgart stuttgart daldi jitu ñaari bal ci dara biñu ñëw ci second mi-temps bi ñu daldi duggal benn bit waye nak di ci daw ba ci 96e minute dernier minute ci temps additionnel bi ci lañu duggal bit bi nga xamne jamono bi tax nañu daldi dabé wala jéxal match bobu ak deux partout kon batay ñum amuñu defet ñew wa bayer leverkusen jeenu ñu li nga xamanteni moy seen ab saison ba muy waja jeex saison bi nak jeexagul batay ji meun nañu am defet waye de batay ji ñu waxe yeen defet mom amagul ko 46 match jeenu nañu ko te jeelu ñu ben defet ñum wa bayer leverkusen voilà tey jii la mujj foofu la ca Allemagne Al Nassr bu Sadio moom tey jii dañoo dal di am ndam benn bal ci dara ci match boo xam ne day ki nga xam ne moom la ñuy wax Laporte moo marqué bit boobule Sadio Mané bokkul ca jogante ga ndax dafa am li nga xam ne mooy suspension moo tax bokkul ci match bi Cristiano Ronaldo nag amala li nga xam ne mooy retouram waaye daal match bi bit bi nga xam ne xew na ci Laporte moo ko dal di dugal kon benn bal ci dara la jogante googu dal di jeexee loo mooy loolu ki nga xam ne nag mooy Jean bi moom nag dafa dal di wàcc ci li nga xamante ne mooy deuxième division ak équipe am bii di Almeria voilà saison bi nekkoon na bu métti ci ñoom tey jii nag ci match boo xam ne ñàkk nañ ko seen diggante Xetafe moo leen dal di yóbbee jamono bi ñu wàcc ci li nga xam ne mooy deuxième division kon kii di Diallopi daal bu amul chance ni ki ca deuxième division bu Espagne lay footballé gannaaw bi nga xamante ne gis nañu ma def nga ni saison moom donte ne équipe boo xam ne dina ko dal di signé mu des ci première division bi ndax xarañte moom daal dina koy am moom gone gi lay di Diallopi loo ci mën a dégg daal moom wàcc na Italie moom match bi nga xam ne place bi nekk ci gannaaw dëkkandoom bi di Inter de Milan bi nga xam ne mooy champion bi voilà kon Juventus moom moo nekk ci ñetteelu place bi ci loolu lay wéy gannaaw bi mu amee tey ji match ci jongante googule ki nga xamne moy andré villas boas bi nga xamanteni mo nekkon ancien coach bu ñi di wa chelsea football club tagal na équipe bu melni tottenham wala bala muy ñew fofu tam jaaroon de porto xam ngeen andré villas boas wala mom nak jamono bi mom lañu tabbu mo nekk njitu équipe bi nga xamne moy porto manam mo nekk président ba gannaaw élection yi ñu doon amal bessile mom moko gagné jamono bi kon mo daldi nekk président équipe bi di fc porto ku demone des clubs afrique xamna ñu ñent club ya nga xamne ñu leen cey téwal bokku na ci club yi ñu leen di limal wi dat bi nga xamne fofu la ci maroc la nek ak ñi di wa al ahli bi nga xamanteni mom fofu la ci egypte la nek wala ak ñi nga xamne ñi wa esperance tunis ak club bi ñi wax mamlodi sundowns

mooy coupe monde des club boobule xawma kagn la ci Sénégal di tew ndax kat li nga xam moy compétition africain mom moom ci ya def tous voilà gars ci ay préliminaire lañ leen di éliminer xamna bu fekkonte jamono doxna bañu wara mëna jouer ay ligue des champions bay déng maam dem ci ay quart de finale ak finale wala ñu gagner lolou dinañu yobbu ci li nga xam moy mooy coupe monde des club ñu cey gis ay jaraaf wala bok ñu fay gis ay génération foot wala ay Teungueth FC yu mel waaye lolou xëy na bés dina mos am kon lolou moy li fi gënon fess gars yi di leen wax ngeen way di top topp Sen Sports 221